waaw kon nag ak balaa xel xel ña waaw mooy gis ak warta jëriñ warta bu warta xasee ak buraax la warta bu weex bu ñëw xasee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yëngu fi mu lu may bëgg rek bu warul ma ne dina ma rabu daa nekk di war waayam ci aljana rek di ne ko ak buraax ngoo ba ci mën nga nga ci bët sa dal rek doo dal di sa dal mbir ma def nii ngëpp dëgg ni dëgg ni fasoo ci fan si def yéen fasoo loolu dëgg ni ma kam salaam alfaaxal day kam kam waaw may ka kam warta gi warta bu wert rek efek alfaax la warta feex bi moom efek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te buuma lu may bëgg rek warul ma ne dina ma ràmm daa nekk ci war waayam ci aljana rek Jibril ne ko alquraan a ngoog bët ci may lewi de bët sa dal rek dawa dal di sa dal Jibril ne def ci ngëp te dëgën yi dëgën yi sax ba ci sant yi def yéen ka cawleel ba ni ñuy war sax sant yi dañuy jafandu ci dëgën yi sax yi ci dawa daw sax yi topp ci baal sang bi kon nag jiw def yonent war a alxuraan suñ la nga amul ca dëgg daw topp ca. ba nga xamee ne naawee nañ ca Makka daal di daal ci bayt maqdis rek alxuraan ne yonent bi wax wax ci jaaru mu ne ko jaaru ci la yonent yi daaw xew seen i daaba xew ko xew daabaam dugg ca jàkka ja fekk na mboolem yonent yëpp alpaka xadim yi téeméeri dina ñaar dina ñaan dina yëpp a ngi fàtte ba nekk ñu jiite leen donc jiite leen dindi ñaar raaka sëlmal ne ko balaa ma maar maar woo xam ne mosuma ko maar mukk dal leen di ñetti kat ñu def sàngara def ndox mi def taw nan ci tànd taw naan ma baabu tànd naam dem yàlla kon naanoon sàngara ne sax danañ burda naan moom yonent sallallahu alayhi wa sallam dana daal di waraat alxuraan rek wala ci ci ko miiraaj te nawet alxuraan la rañaane Moussa ne ko maa ngi lay yóbbante ngalam moom te yow mën naa dem ba gis dara Moussa soo demee kii bi fa benn rakka saa ñu ngi ba tey te yéen a demee ba ci seen Moussa ñu ci benn rakka tegal ci boppam beneen muy ñaar ah yàlla ne ko defaatal benn nag ci benn la doon toog loolu tax loolu mooy ni Sousa mii tax gannaaw buñ war a nekk ci juróom alpura dana dal ci waaru alpura te dal ci asamaan bi def dawa dal ci iblis fëgg boo kanaa ci bi waa ndax Muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko nit ki ne ko fa la fekk yonent yàlla aadama bàyyi mbindee fii rek nañ ko mën a ragal ba ñaawee ko yi marhaban doom bi marhaban yonent bi yi ba mu mu gis aadama mu ne xoolee ci lañ doram ree xoolee ci xamoon ne loolu nag ne roxee doomam yi lay gis te xoolee ci lañ doram roxee doomam yi nga xam ne dañoo weddi soo dem safara loolu la xoolee ci lañ doram roxee doomam yi nga xam ne dañoo gëm soo dem aljanna loolu lay ree xoolee ci càmmoñ ci roxee doomam yi nga xam ne dañoo weddi soo dem safara loolu lay jëlee alquran dañ ko dal ci asamaan ñaareel soo dal sa ci biir fëgg soo kana ci biir ba xamal waaw loolu nañ ko suuf bi foofu foofu la fekk ñaari doomi ndey sax yi Yaxya ak Iisa su ma ñu leen ñu tabagal ko ñaari doyu ak baa ba tagal ci asamaan ñetteel la wetal fa ci foofu foofu kana ci suuf ànd ak membre waaw yooyu ci foofu la fekk yonent yàlla Yuusufa fekk ñu jox ko genn wàlli taar rek ah ak baa ba tagal ci asamaan yi ñeneen teel doo dal sa ci foofu kana ci biir ànd ak Muhammad waaw yéen nañ ko yéen nañ ko ñu foofu la fekk yonent yàlla Idris rek yàlla wax naa war a wax naa makaana aliya mën nañu ko mu tabagal ba ñaanal ko ni ak ba bët ba dal ca asamaani juróomeel dawa dal fa biñ ko ko kana ci biir ba ànd ak Muhammad waaw yéen nañ ñu ko tak yéen ci Yàlla Haaruna ba suñ ko tabagal ba ñaanal ko ni ak ba ba dal ca asamaani juróom beneen dawa dal fa ci ko ko kana ci biir ba ànd ak Muhammad waaw yéen nañ ko dañ ko ñu ko xool ak yéen Yàlla Muusa mën nañu ko mu tabagal ba ñaanal ko ni ba muy épp looy daal waat beneen da ko ci sama kaw rek da ko ci sama kaw tarbe waaw kawar yi gën a seen baax na waaw jiw nekk ci soo kana jiw ne ko yonent te kii kaw kana jigéen na ko Moussa na Imrana muy soowee mu ne boromam mu ne met dafa xëj alquran ko fetal ci asamaan juróom ñaareel te watal fa ñu muy sa kaw kana jigéen ba la mu waaw yooyu nañ ko yori nañ ci bi kale bay ba fetal ko ñaar ba ban toog ci Ibrahima ak Adama rek ñoo ko tudde doom ba ba ñaan ci def ñëpp bokk lañ koy wax ba ndax ñun ñoom seen doom la Adama mooy bàyyi yi def yëpp Ibrahima nag waaw mooy bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dem ci Sidratul Muntaha nag mu ne waaw man yaa nga tey waaw ka leere Hajara waaw comme yaa nga waaw kon ni waaw nokk ñooy de waaw ko def nag bu ñu ne ko jàpp jàmm man fii laa mën a yem kenn mënta bàyyi ko suuf déet ba weesu fii kenn mënta bàyyi ko ko itam wàcc ba weesu fii fii mooy day waay waaw jàpp jàmm na nga dëgër nag nga xam ne dafa sa gaay ba gën a nga dëgër dinañ ne ko waaw suuf si nii ànd doo dana ci wàcc ànd tool mu ne ko juróom-ñaar téeméeri téeméeri kanam nga xam ne ma leen jegewoon juróom-ñaar téeméeri téeméeri leer a ngi kanam nga xam ne bu ma ci jege mu la xamoo lu mel ni te suñ ko ko def ci ba safara de man mu maa dem di nga ci laa yem foofu la yonam ci dina diwee sallallahu alayhi wa sallam ba jàll juróom-ñaar sëb téeméeri téeméeri ñëpp lu nekk tam dina dina gis na dem na arasa kuddéyo dem na ba wees kaw te ci nit tawal tawal ba faagee xool du xamatu xam nga fi ñu ne ñu ne ci suur la ndëpp ñu nga dem ci mbine ne ba ak koo xam ne koo fi xamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw dëwri ay kàpp mësar yeeg suñu tàngoor moom yàlla daal di bind kaddu Babacar si ñëpp kaddu Omar ibn Khattab ñu wax ci sama muy dégg ànd ak gaañu ci nañ ma fi gaañu nañu foor foor ak ñu foofu yonent bi nag bëgg teel yàlla ba mu nuyu waaw teel yàlla ba rek kat taay taay kat taay loolu suba say tax waaw tey ma ne salaamaaleykum yaa nabi wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñun ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi yàlla jëriñ ko nag ñu ne waxamaa ñoo toyam mu ne wax na ma laaj ñoom du ma toll fekk seen tam la waaw sama waaw dënn bi su ma yëg kaay ba waaw ci sama diggante jokare yi rek mu jox ma xam-xam ma jëkk a wéñi ma daal di tontu yoon tontu nam balaaj ñëpp foofu la ko yàlla war a nag ci ñuy juróom def ko ñu juróom ci gin may ko nag ay may yëpp ci lañ am yëpp doon di def ko nëpp waxtaane wu ko ne buñ jënd see nag ba ci asamaan juróom beneen bi gënoon a sax ci man ba may dem te moo gën a baax man dama ñu ne ko mu saa yu neem raana bi mu yëpp mu ne ko nanga defal sa borom mu ne sama borom teral na ma borom na ci sama xeet ñu ci ñu def juróom fukki jibi mu ne ko duñ ko delloo ci sa borom mu wàññi ko mu dellu sa borom ba yàlla ne ko wàññi naa ci juróom jël ci Moussa ne ko duñ ko mën dellu ñu wàññi mu ne dañu ma di baagante diggante yàlla ak Moussa yàlla di wàññi far juróom juróom ba mu des juróomi jibi mu ne Muhammad faral naa ci sa xeet juróom fukki jibi léegi wàññi naa leen ko ba mu des juróomi jibi dogaloon naa ne sa xeet benn bu ñu def ba jàpp ko muy fukk kon juróomi jibi yi su ko yàlla jàppee benn bu ne di fukk muy lan te juróom fukki jibi ba tey yàlla ne maa ngi baddaloon xolu la dee sama dox léegi ñu juróomi rek dañu gis rek dañ di fay yonent wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam dellu si ñu ne loolu yëpp fañaan benn saala ñu ne matu saa ñu ne benn saaniye la benn saaniye mooy xaaj ci ñu xaaj juróom benn fukki xaaj waaye di dëkkal ne matu sax loolu yonent ba pare an braba bay tëb ci la ñaan dañ laa am kenn na banqaas ak garab ba muy dem dem na ba dellu si yëngatu bi banqaas ñoom yëngatu ci gën suñ ko feeroon dëgg ñu ne fa mu tëddoon di nelaw xam nga jëmmi doomu aadama tëddee ci tëddee ci barab ba mu yàgg sa wattu ci juut booba dafa reetaan tuuti dellu si na fekk fi mu tëddoon ba jógee si dem rañaani ba tey ni ko yaramam tàngaloon tàngaay ba dañu rañaan moomu mooy rañaanu mag ñi nga xam ne yonent rañaan na ko yonent nag yàlla rañaan na ko ñett fukki yoon ak ñett yoo xam ne ci yonent la waaw yi ci rawam rek la waaw kii nag mooy rota rañaan mi nga xam ne dem naa yaramam lépp dara ñu ci dem tamit moom la ko di wax ne subhaana alladi nawat yàlla pour bi nga xam ne afra rañaane na mu jaam bi jaamam ki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata la yàlla bi nga xam ne moo rañaane jaamam bi ci Muhammad yàlla wéet la jëf ci boppam ko naan wadu lën waxu ne yonent dafa rañaan waxu ne dafa dox yàlla la wax ne moo ko demee yàlla nag moom dara nga tën ko jëf jëfi toolee Muhammad waaw ci ndimbalal borom bi la waxu ci nabi yi xaq yi la wax ndax ne woon ci nabi yi mën naa effectif ci defe ne di bu nañuy la ñu atam réer atam na saara réere def instant mu di doomu yàlla moo tax de waaw waxu nabi yi xaq la wax waatam abdu mooy ñu yàlla takkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaama mi gën a màgg maqaama yonent oote jëm ci yàlla moo ci gën a màgg loolu la maqaama tay yàqoo sama Abdoulaye la ko fa tuddee ak wax li ñuy wàcce alquran ci moom alhamdulilahi lii antala a abdi kitaaba abdi la ko tudde foofa ak du dañ sañaaño nag waaw kenn kendee ko rek ku dem ci bayt maqadis dem ci asamaan juróom-ñaar demaara sa tur yow ku kawan demal janna safara dellu siyaar foofu itam abdu la ko yàlla tudde diine bu tax maqaama ba bodiya mooy maqaam yonent bi gën a kawe moo tax muy wax ne ana dañu du wala di aadama war a fax maay sangam doomi aadama yëpp waaye loolu ci sama tiitar lii tiitaram dëgg mooy nekk am ngam nekk di jaamu yàlla su tax bu nekkee sang balaa nekk sangam nekk ci mbindee bi waaye ci téyel yàlla jaam lay doon wax boobu nekk ci téyel yàlla ba nag booba la gën a tooyee booba la def wax bu nekkee ci mbindee bi de wax na sëreem ci njaam la waaye ñu ngi ci ak canga de yàlla mi nga xam ne bañaane na jaamam boobu te dina faa it ma xamam suufeel boppam ci la toll ndax may gërëy na rëy goo xam ne pour bañ xeetam mu réer naka la saara réere def ko mu di yàlla waaw ma tax nag su tuddee ko jaam indi xaaf jar jar ko de day leen ca guddi mun ko rañaane nag ca guddi guddi gi natural nañ ko ngir nga xam ne ab xaaj la ci guddi rek ci ci gi lépp xaaj ci tuuti rek ci guddi ci la rañaan mi tax bu tax defuñ ko bëccëg bu kees tax kenn fañ ko mën a weddi def nañ ko guddi tax dëggal dañuy dëggal am yoonab dëggal te di ko di weddi ñoom waaw yàlla alak leen de ak itam guddi mooy waxtu jokkoo diggante soppe de di soppante dëgg waaw waxtu nañuy jokkoo de moo tax yàlla dégg ko guddi waaw mu rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw naka soppe boo xam ne day dem di see seeti ak soppeem see waaw dig guddi ween dina mat guddi jàkka ja alxaraan yi ñu xamal seen mat waaw yàlla la ñaane ko nag mu jóge ca waaw jàkkay màkka ja jëm ca jàkkay fay ci màkka de jàkkay màkka may kaawa bi te yàlla wàcce aadama ñu ñëw ci suuf aadama jooy jooy jooy jooy ñeen fukki fan ne yàlla yàlla ma génnee dootuma mën a wër ci arab dëkkuma sa jaam yi nga xam ne saa yëpp ñu ngi lay sàppal di la tudd bala ma nekk ci àll boo xam ne kenn du fa tudd yàlla yàlla daal di ko wàcceel bayti mahmur muy kaaba gi de ko seen wër kaaba gi rek say doom képp ku ci may suñu war a dégg rek ma baal ko adama ak na ñeen fukki yoon bàyyi ko hind ci dem makka ñu ne yonent suñu doon war mu ne booba ana kaaba ji muy war adama benn daa baatanu ko aa dafa ko war waaye am waaw dafa dafa dox ñeen fukki aajam yëpp dafa doxal tànkam booba nag ajaru la ko yàlla ko jëlee ci yàqu te aljan te ko jëlee ba muy leeral ak xaram bi am ci wàll yëpp moo tax de ku leer ka daanaka faak ci rek xarmal moo tax ñu xarmal ba tey ci ñu xëy bakkaat doomu aadama yi moo far leer googu ba ñuulal ko léegi waaye moo gënoon a weex neew moom dañ ko jox yoon la fa kaaba googu nag yoon dañu foofu la rañaane jëm fan jëm tey ci maqadise ci iliya foofale yàlla tekkal yonent yëpp ci jiite leen de la di masjidu laqsa mi nga xam ne ak na xaw la loolu yàlla ci nanu wan ko mi naa ak naa ci kaafir bi waaw ndax yaa wan yonent ci sallallahu alayhi wa sallam kenn ci suñuy kaafir ne woon ak moom lu tax ñu def ci tamit lenn lay tekkale ci ci sa Ibrahim ne wa kadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi defuñ ca min Muhammad ñu def ci min te Muhammad moo maqama Ibrahim defal bu baaxu tegi rek Ibrahim malakuta samawati wal ardi dañ ko won Muhammad nag ñu ko won ayatina daa defi yàlla ci boppam daa defi alamu dayo moo tax fokk min bu dugg ay terewut Muhammad def maqama Ibrahima rek ci won malakuti asamaan ak ci won kaa defi yàlla ci boppam ñu noomu def ñoo naka moom woo moom xam na mu waa ji dégg naa dana jox Moussa Moussa kitaaba tawreet yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko tawreet ba jaar naa tam def ko bu dan muy aj ci bandi bani Israël ci bani Israël de naa ta taxisoo leen jàpp ci suñ doon yi ku dul man wax ci leen ku ñu jaay li dikkam ci moom ne duriyata man xamal naa ay yéen sëti kenn waral leen xanaa nooy ñu ànd ak nooy jegaan nga ay yéen sëti doom yi nga xam ne maa leen defoon jegaan ak yonent yàlla nooy nga neew naka moom nu kaana nekkoon na mu kaana mosuma dañ ab dan di jaam ak korom pri santa kon boromam de yonent yàlla noonu jàpp bëri jant yàlla la woon bëri ñu digal ba tax ñu def ko def ko ba xam bay naa bayu nanu ilaa bani israila dem ci bani israila ci kitaab ci tawreet te toog dina walaay da ngeen yàq ci dara ci suuf si saam ma dafa yi yaar yoon de bani israila waa xeet fan da ngeen yàq lu bëri saam si ma yàlla yaar yoon da ngeen ko yàqaati wala tax nu na da ngeen tooye ngeen teew lu wala teew kabir teg bay sa jaa dem ci gën a waa du néew maa day lef kenn ci ñoom baax naa nu fan aleykum ci yéene ba dana ay jaam danaa yi ñaan nu uli baa ci di war a may xale waaw sax ba jaasoo dañu wàcc ci laa la jaari ci sëñ ya de damay leen jàpp leen ba kaana tam nekk waa dañ ci dëral na xoolal ci buñ def de def na njàpp bu njëkk googu bañ reyee Zakariya Zakariya yonent bi yàlla mu xëy rek ne ko jooy ko Zakariya daw ñu topp ko ak jaasi waaw daw fa ca digg àll ba borom bu gat waaw garab sa xar ne ko ñëwal ma làq la waaw mu daal di nangu waaw garab sa xar mu dugg ca biir garab ga départ ne na melal ñii daw baag ji fa waaw ci ak Iblis jëlee na dara ci boppam waaw feeñ ca biti de waaw ñu naan Zakariya ci garab gi la dugg ba maa ngi nii ci daal di fab ci dem na ngoo làq ci dugg yàlla moo tax yàlla wàcc ko bañ bañ rey ñu daal di teg ci ca garab ga ci ba jot ko waaw mu ñëw ñu ci ba dagg ko ñaari sëgg waaw moom jëneen yàlla Zakariya noonu lañ ko reyee yàlla daal def it ñoom jaadoota jaadoo tañ naw rey leen ñoom ñëpp ak seen ndaw yi def leen jaam rappal ca kay bayti maqadis waaw ba ba gan yi dëkk suufaane ganaaw ga nag bañ sugee marata daqab mu delloo la ñee leen altaratan gurga alay ci ñoom ganaaw téeméeri at nag yàlla daal di xebal daawuda mu xeex ak jaalawta daawuda rey waaw jaalawta waaw bani israila nag amale xafiya nag ñu dellu dellu ja dellu dela tay ci maqadis e delloo ak dañ nekkoon am nga santum tan tab leen di am faal ay doom bani na ko jaal naa kum tan def leen ak sara ngeen ci gën di bëri ndax ñu ren di jiddee ñu ne ko ci leen ni faqat ñoom bani israila ko gën a bëri ci caat dañu wax leen ne ina axsantum seen xéwénal ngeen topp xéwénal ngeen am ndax yéen a jël seen ab yoon rek day asaatum dem ñaawal ngeen waaye wax na day sa jaa dem ci kina waa saaxira bi day lef kenn ci waaw yàq day lef kenn ci leen day lef doon mujj woon ak yeesoo gis ñu dekkal leen gis nañu jàppaloo wu jóog ay kanam seen dig ray ak ak njafeel de yeesu ak di nañu xarafati ñoom noonu yàlla masjida yàkk je waaw dama daxalu naka ñu rappale woon quoi wala ma rafetlu ci njël benn yoon de dama daxalu naka ñu xarase ko rappal ci njël benn yoon xaw na ma rafetlu ci njël benn yoon te biro ak ngir nañu xalak maalaw baaw lañu not sab benn ak xalak de yàqati yoonu ñaareel rey yaxyaa yaxyaa doomi Sakariya maa de di seenam yonantu moom ñu rey ko jëf nañ ko rey yàlla sange ko ñu ñu di neexal as ndaw nee na ko kosone koree pour di rey di yaxyaa moom dana ko dégg ndaw soosu moo moo leen dimbale bañ rey yaxyaa bañ rey yaxyaa deret ga yoon ci di ko suural suuf ci suure rek soo deret ga ca kaw ñu suuf ba xam ne suuf ba gën naa tawee sax seen sooraay ja dëkk ba yëpp deret ja tawee fer ñu bàyyi yàlla daal di xiin ci ñoom bukk na sax ñu ñëw rey leen fay ci ñoom ay juróom ñaar fukki junne jàpp seen doom yëpp def leen i jaam rafraaf bay ci ba xadis ba mu gën a rafraaf jëkk ba naa rabu ku maata na borom seen yaraama ko ku mu yërëm seen gannaaw ne de gannaaw yoonu ñaareel mu yéen ñu yéen bani Israël yàlla mën na leen a yërëmati ndax am beneen yoon bay nu waxtum waaye dem dellu ngeen jëm ci yàqat yi naanu dellu waaw jëm ci xarak leen de waaye su ngeen yàqatee rek yàlla ñu leen di xaar ñu dellu dellu bañu yàlla ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu weddi ko dañu wedde yonent ba yàlla it ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu rey bani Qurayza ak bani Nadiir ak di leneen garag ba seen kam yàlla ba jaanaa fa def jaanama jaanama ak yeneen muy kat am ada de dañu dawal ci tab loolu tam ci ma wax tab ak ñaar la adam jant bi baam yu xayre jambar te di ak juróom benn waaw weer wi itam weer ak ñaar la ay ci am am rek ba a ba bëtre waaw téeméeri gësta ak suuf suuf ak jëlan ko kun nag tey lépp la waaw di leen dañ ko xas bi ak jënte amul dara doo xam ne daal di leen ko aajo mooy yàlla di na ko yàlla ko ànd ba kun nag insaan yi jëkkal nit waaw xala nañ ko ci def ñu ku nekk nag ñu ngi ànd ak ci nit defum ci loosam doo wax doo jëf ak ci mag ak yi ak ci mag yi sa magam na ñor ak yi ñu ngi ci magam jamoy ne doo def ci woon doo wax ak yi mu koy bind ñu ba ci juróom ñaar fukk ba ci juróom ñaar téeméer doo def ci safaan ak yi boo koy yittale di ci yemaade yàlla jàpp am na ak yi mooy buram ak yi da sañ ko bind da sàkku ko te ñaaw ci ful soo ko defee voilà te bind sàkku ak yi ko tàggoo mu ne ko mu ñëw ko juróom benni saa su baroo yàlla di ko bind balawut yàlla nag di ko bind benn yoon moo tax yoon te kere sàkkat de ay benn bennam dafa ay sam de jëre boobu la ñu sos rek yoonu kii ci loo sos rek lépp loo xam ne wax nga ko wala jëf nga ko ba ma ngay dee ñu ko bindee bu koy jëf yàlla nag kon bu ñu dërëm génne na ñal xaamal xaamal jëf tënk yàlla xaamal téere yàlla xaamal boobu dara mu dajeeg moom man xaamal mu ngi firi de tey tam yàlla nag yàlla xam ne jaamu yëpp ci daje xam nga ci dem yi dañuy di jéem rek téere ci naawal seen bopp ku ne sa téere naawal jëm ci yow rek ñu nangoon ay jor defe yàlla ñu teel a boole ñu nangoo jàmmooy rek ñu nangu sa gannaaw ci gannaaw dara jàngal ci baaba nga téere sa waa doy na xale yow ma sa yàlla yow xasiban ci ay hisaab jàngal ku nekk yaa hisaab sa bopp rek yaa jàng ba ne man saxe naa wala nga jàng ba ne man saxe dina rek mani danaa bi tam maa naf si jël boppam ku jub boppam la jubal de ah yow la boppam moo koy jël kon ba nag ku réer nangu dama yaa naka dana mu réer ala yaa boppam naka noonu ku réer it xebut ko xel boppam la ko def ndax bàkkaat réeram ci moom lay daanu de wala ta jiro xenu kit paasi na suñu bakkan bu dee aji bàkkaar daw saa bàkkaar rek bakkaar da bakkan beneen jënd jëmb du bakkaar bakkaar boobu ngi teg ko keneen de ñu bindoon doom bakkaar ta baayam bindoon baay bakkaar ta doomam de kenn ku nekk yaay kat sa bakkaar ci sa loolu bopp rek comment ko naanee pour mu xam si jëlee si way bugal kenn daan abaa ci yoon kasoon ci ñeenti te yàlla du xalaat affaire su may dafa yónni ñoom ak yónni comme xoo leen jëm ci yàlla bañ bañ ñu fa leen a xalaat de bay daa xalaat naa dem na mënalu am na li kagunu alakat xaree tan ngeen dëkk amar naa ku digal ku trafiya fay teewoom ba ko fa ko dañ gën a topp yàlla fiyaa ci moom a asawar xale ak ñoom alxawlu baa tam bël ba samar naa tan xalak de tam fiya naa xalak de dëkk bu yàlla bëgg xalak fay ti rek waaw fay tee way màgg dëkk ba ci mooy yàlla de waaw soo xamee ne nuur nañ ci mooy yàlla yàlla daal leen xalak de ñoom ñëpp ñu xalaku wa kama xalak naa bari na bu nu xalakee ndax kon ci seen yi bin baa di nooy njaganaa yoon yàlla noo dafa doy na biran ci borom ko bëgg baa di ci bàkkaat yi jàmm abiran jaajo xam jiit basiran jaajo xam ne waaw te yàlla lépp jàmm bi def dara mu ko ne am na biir yëf yi naka mu amee bitti yi man kaa na ko nekk nag jiit dana mën a mën son wala ñu ne taa àdduna dem naa taa dawal ñu ne ko fi ajaat ana saawlu mu soob ci ñu ne ñu ne ko mu soob ak gaayaram ma jaal naa ko fu def kon kon ko jaaraat ko jaanama jaanama yëpp laa li moom dana mu xaw ko mas mënoon nit ñi tàngi rek boo xam ne yaa ngi jëm kenn mënoo ci te jëm du may àdduna rek yàlla dana la jox ci àdduna nam la doora la loon ko neexee waaye rek kooku moom alaxira am jëm jënd jaanama rek de ma tooran bi mu suñ dàq ma tooran bi ci sori ñee bandi yàlla wala ala rek nam na mu laaxira sa alaxira sa dem jëpp daa ñeel ko saa yaa jëfam jële aji dëppoo moom moom wata moom moom yu aji jam la mu ay ne la gaay kaanam suraay ke ne la gaay kaanam mas la dañ ay um jëf seen mas waran liñ sant yàlla leen defe waaw soo sangoo boo xam nag ne alaxira rek ko tax di liggéey dam jëf jëf ci dëppoo alaxira mooy bu dëppoo la si yonent si tanaa yonent sana day tax jëm na yàlla kooku moom jëfam moom la ñu nangu fa yàlla rek balaa ñoo nangu jaamu yàlla rek borom gëm ne sartam jaamu yàlla buñ gëm yàlla bu gëmee yàlla ba noppi day sara yàlla woo jëfal yàlla balaa ñoo nangu jëf itam bu dëppoo ko di sida naa leen dama ne waaye ku kan sa jëf joo xam ne dëppoo ko sa itam lu mu bari bari yàlla du la ci yoon dara waaye bu jëf rek jëm ba noppi jëf jëf dëppoo sunna kooku la yàlla yoon jëfam de bu nan jëf ñaari kuréel yi ñu dina la jox waaw laay ci ne waaw laay ci ne mi naa tax yàlla tigga ci ma ak borom sa ci àdduna ñu liggéey alaakara loolu du leen ay seen wërsëg ci àdduna te la yàlla jox leen dam leen seen wërsëg ci àdduna ñu liggéey àdduna itam yàlla dana leen jox ne seen wërsëg ci àdduna ma kaana masta day hatta wa rabbi sama borom ma waral suñu tere ñu soxla waa yàlla daal ñoom danañ mën nañoo am àdduna am alaakara ñu liggéey alaakara mën nañoo am loolu balaa ñu ko bu ko am tamit ko bari ci bàkkaat yi ko am xam nañ ko ay xam parce que dañ ko xam de waaw waaw nag ñëpp dañ jàng na dara bu gëna am na bu ñu ñu tam ko am bu ci man ta na ko nekk na ñu ñu ko na ma ci jëfal ba na dara ta ha do ba na lu ba do ñu ko fa ta di ma na fa ñu ko mu ñu ñu ñu ko fa ak dara ma ba na ko fa ba ba ñu ko ba na ko ba ñu ba ñu ba te xam nga dafa am tamit lool nañ leen gën a gën a xam ne daal di jot dana mën a ci dëgg mën a xam dara parce que loolu nag ci wàllu dina war na dogal lool bu ko mën a dogal. waaye nag kooku moom am na problème bu ko dëgg yàlla waaye rek ma programme bi ñu ci suñu baax ma programme bi ñu ci suñu kër maa ngi yàlla. ma ne ah rek mën na doon ah dana doon waaw kala fan laa la tam jëf waaw ñu ne ko fan laa te ñu ko daa ñu dëppoo moom. boobu tamit moom waa ji dem na moom kon xanaa mos la béy yéen jot seen bopp sant yi dara leen. parce que waaw foofu la koo xam ne teel a laaxira rek dafa tax ñu tëddee te mu tëj tëj ci dëppoo yi laaxira mooy bu dëppoo ci la biir bi ko laalee fanal day fekk comme ne yàlla boo ci moom ko moom moom la ñu nangu fa yàlla rek xanaa ñoo nangu jaamu yàlla fekk borom gëm ba parce que jaamu yàlla moo di gëm yàlla bu gëmee yàlla ba noppi day sama xendoo jëfal yàlla xanaa ñoo nangu jëf itam ku def ko ci jëf yaram ci sa naanee ba ndaw de waaye ku sant sa gëm gaaw carte nañ yàlla carte nañ alaxira ñoom yàlla nam ko baax carte nañ ñaare yàlla nag moom dara du tere yàgg ca moom mooy ñàkk suuf rek suuf bi itam dara du ko tere du may nga ñàkk itam dara du ko tere su may ñàkk gëm rek waaye bu gëmee ak bëgg a tudd wala man jàll man jàll. seetal kaayam sax xam naa ne kenn gën a xaw gën a gën a rabaat ci kenn seetal gën a jàpp gën a leer jàpp jàpp déggul ah ah dara dara dara maa dara ja dara ja waaw dara dara maa dara gën a leer seetal bi ak gën a rek jàpp amuñ dara ñaam dëgg-dëgg ñaam dara jaar ñax awante gi jaar su rek day la day la waar te ci àllaaxira la rawee booloo ci saaba yi bu ñu waxoon def dina Omar def ko gën a yóbbu dina Omar nga génne ak Bilaal ak doy bu jóg bi la jëkk a may ndigal ñu te Abu Sufyaan a ñëw ànd ba yéen a wootee ñu man kooyu liñ jëkkandoo yi gënu rek ma la xamar kese ci kaw te yéen a jaay nekk dem ci leen Omar sëriñ tam rek yàlla xam waram yàlla loo nekk. parce que daa ko yàlla bu dem maa laa ànd yàlla rek daa daa xar a jëlee. yow nga am de bul sàkkal yàlla bakkaare. parce que soo soo dem ci soo dem ba ci kenn sëriñ. sàkkal yàlla bakkaare yàlla dana la wàcc kenn sëriñ prévère. ba xam baa di gën a am sa borom sa tatam ay ga dem ñaar ak juróom ñi ñëw ci diñ kanam kon ñaan te yoo xam ne yàlla tere na ko ak kon te yoo xam ne yàlla dikkee na ko waaye seen ñaar ak juróom seen borom ñu laa tàmpa na ko digal lu njëkk laa ngoog am kenn na leen ba leen jàpp kenn du mooy yàlla tere na bokkaale bi duwaar yi day ne yéen na leen yaari waajur waaw toppal sa yaari waajur ci dem leen tere na dënga waajur bakkaar yëpp bakkal yàlla bakkaar yëpp moo ci gën a màgg gannaawam dañ ñu wàcc gën a màgg rek dëgg wàcc te kon nag yàlla du wax xam dëgg sa wàcc xam ba rek dara nga xam ne aaya la dëgg ga wala nag boobu sax daal kenn rek aaya xam na dem dem yow baal mag rek aaya bu maa jël ñoom aw aw maa te képp ñoom ñaar daa tax lu wax doo maa ñaa leen ci nag bon ndax fa teew waaw ñaan la de soo xamee ne sa ndey bakkan na yow wala sa baay bul wax ku ne ma yaa bon rek bul wax nit ku ne ko dem noonu la aaye xanaa bon saaga ko wala dóor ko rawatina parce que baax bu ko wax waxuma nag di ko saaga waxuma di ko dóor wala tamit waxuma bul dëgg neen bul wax ak sa ndey ak sa baay yëkkati baat seen kanam ndew waxal ndew maa ñaan leen xaw leen wax kariman bi yaa ngi nooy de bay wax ak sa waju dana nooyal sa kàddu de waxtin mooy lan ndew maa ñaan leen gannaaw ak liggéey wala torox de da nga torox lu ci seen kanam de su rëy rëy waaw seen sa bopp sa kanam ay waju saa wax leen dina ramati ci yërëm leen waxal rabbi yow borom gannaaw mu ma yàlla nga yërëm leen dama rabbi yaa ni naka ñu rabbi woon ma waxtu wañu yaree ma ndax ren bi mu laaj ci dara yeneen ñaanal yàlla itam bu julli ñaanal sa bopp te ñaanal sa wàcc yàlla dina nangu da nga wax ne yàlla yàlla nga leen yërëm ñoom ñaar sama ndey sama baay naka ñu ma yaram bi woon te yaram ma may daw ne yonent la ne sallallahu alayhi wa sallam yonent waral doon ñu sof leneen gannaaw bi danaa wax ne ngeen déggal leen denc bi sañ aljana lañ bokk ne jigéen soo xam ne baal na jëkkëram canam ci yàlla rek ba jëkkëram gërëm ko kooku aljanna la jëm borom njaboot ñu fay ba bëgg a dikkër këri ba leeral njabootam du néew kooku itam yoonal dana ne aljanna la jëm ak ku tuub tuub boo xam ne ba tey na du jàndum te soo bàyyi ko canam la jëm caram jëndu ca canam bañ ko teewoon kooku itam aljanna la bokk ak ku baaxee wàcc itam wàcc ñi ñëwante yonent na ne soo ragal doon ci fas yeneen gannaaw bi danaa wax soo loolu léegi wax ne nañu ñaan jàll lañ benn nit ci jamono yonent kese laa yore sa ndam yaayam màggat na ci loxoom te moo koy boot moo koy satal baa moo koy saaf moo koy leyal lépp loo xam ne daal danañ ko defal xaleel ci la di ko defal yaayam mu ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de sama yaay fay naa lépp lu ma mën a defal defal naa ko yonent ne ko fayinoo ko te fayinoo ko sax teel mu ne ah kay daana ma boot maa ngi koy boot daana ma dayal maa ngi koy dayal daana ma defal maa ngi koy defal ana ma waxtu maa ngi koy waxtu maa ngi koy lu nekk mu ne ko yi nga wax yëpp dayal koy defal moom doon na la ko defal te dafa la ko doon defal bëgg nga dund yow yaa ngi koy defal yaa tam ci mu dee rek waaye daal def lu baax waaye mën na koo fay nag waaye faral góorgóorlu rek faral di baaxee ko. benn benn ci saa yooyu la nekk nekk naa sama doom ñëpp di seet tontu ma ko dara aayewu ma ko dara ngir bañ rek tontu ko dara mu bañ. waaw léegi yàlla alat ko sama aayee ko dara mu def pare léegi yàlla alat pare tey rek te yow na leen pour dimbale sa doom balaa ci sëñ bi de. soo xam ne bu dul boo ko santee du ko def boo ko santee mu bañ. yàlla bu ci rek rek waaw bu jëlee sa yàlla bu ci yëpp rek rek. waaw te wàccu tey waaw lu foor la rek am na ndaw loo xam ne ci jamono yonent faam ci la woon ba dara de tudd dee ci sax baatam teere bi mënu ko wax su sàkk ko saa mënu ko wax yonent de loolu moom daawul julli ñu ne ko kenn gënu ko di julli daawul woor daawul jaar kenn gënu ko di jaar daawul sarax kenn gënu ko di sarax koy baax yëpp kenn rawu ko ci woon mu ne am na wàcc ne waaw ndeyam mu ne waaw dem ko ci waaw ndeyam mu ne ko te doom ji ñu ngi ko xalaat ilaha illa mu dëkk laa mu bañ ko wax waaye bi da nga ko mere bu ne dama ko mere da ma ko baax fukk yéen ne ko looloo tax nag mën dama baat télé bi waaw ko ko baal bu ko wax te bu dee safara la jëm mu ne moom ca na dem safara waaye du ma ko baal yéen ne ko baal ko dafay dem safara mu ne na dem safara du ma ko baal yéen ne gaar yi dem leen taxawal ma andi ma andi leen ma sa gaaw yéen di ma ci jóor mu taal ko ba mu yàgg mu ne fab leen def ci toora bi yaa ngi ne ah safara dafa taxoon ma di ko ëmb ñoom ñeenti weer dafa taxoon ma di ko nampal ñaari at ay yéen a fi te boo ko baaloon safara la jëm wala indi man ko safara léegi daal di naan mu ne baal naa ko ba muy wax baal naa ko rek waa ji ne laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah muy ziyaara sa waaj guddi alkanan gannaaw timis fekkee dëgg yoon nga ko sax daa nga def ko doon baaxe nga muy ñaanal sa waaj ixlaas gannaaw julli bu nekk juróom yoon juróom benn yoon ànd ay juróom benn yoon sa yaay ah juróom benn yoon sa yaay juróom benn yoon sa baay yaay ngay jëkke nag ak ay waajur ak yaay mu gën a digit ndax mu ëmb moo nampal bu nekk déedéet fukki fukki yoon te fukki jaar te laata ñaar juróom benn te ñaar ñaar sa yaay buy dund nga ne may naa ko sama yaay ji dund ko ci téeréb jëfam bu fekkee dee na nga ne may naa ko rek waaw mu nga wax téeréb jëf dafay daal di xàgg ci moom bàyyi itam loolu loolu it ma saxal yàlla nee naa bind ni waaw kuy kuy ku jox ku ku baaxee wàcc ci moom bàyyi itam loolu loolu it ma saxal yàlla nee naa bind ni waaw kuy kuy ku jox ku ku baaxee wàcc tam nga ne am na ñaar rakkay ci ci ci li guddi alxames rakka bu dee fatihatul kitaab ak ayatul kursi ak lixlaas ak xulóor bi yaar teg ba juróom ba fukki ak juróom ba noppee dañ faral fay wàcc ci yoon ak juróom ku bind li ci liggéeyam pour sa wàjju rek dinañ la bind ne aji baaxee wàcc nga rabbukum borom seen alam baal ay baaji xam dina fi nu ko si du nga nekk ci xol seen rek yàlla xam na ku nekk la ne ci xolam ku ku nëbb ci xolam ne nay baaxee wàcc itam yàlla xam naa ci xolam ne dafa naa la dañ nga wàcc itam itam yàlla xam na ko ba mu ko dañ cay xolam waa ara wàcc na ba mu ko defee ittaquunu def rek ngeen faa ngeen ñu way topp yàlla dama la ko moom yàlla yàlla mos moo dañ ndax waroon ci ak ci bay dina waa dina ñëw delloo ak wane jëm ci moom de ngeen fekkee di jàmm yàlla yiw yi topp yàlla yàlla moom dana baal delloo ak wane jëm ci moom de awwaabu mooy ku tuub dellu ci yàlla ci màggal yàlla ga rek bu fekkee nag ni la nekk fa yàlla ci ni yoon moo tax boobu ku nit la fekkee ni waaw ragal bële tax nag ragal gàcce àdduna alaaxira boobu boobu saa yu nekk la awwaab yi dañuy nag ñoom yàlla baal na leen lépp lu sos ci ñoom ñuy dëngee jaar ci wàcc dëgg pour moom ba aat joxal dal pour baa war a mën jege ñaare ak sa waa xam bam santaane wéetal ko fekk ca jubal wàccu boo ba tey fii jaar ci wàccu sax nangam gannaaw wàccu nag day jege ñaare ñoo ca topp rek ay jege ñaare topp leen ci mbott li baaxe gi nga leen baaxe wàccu ci la bokk rek kon nit ki naan nit ki gil gannaaw jege ñaare iskiij comme ne santi ne mu sax affaire bu di iskiij wala affaire bu di yàq tam téeran ak yàq nag da nga dund ne dafa di ab diir ak israaf bu gënañ de ab diir mooy def ko palaasam dund léegi ba mu ko waroon a def defuloo ko yàlla ba nga gënoon bu mu waroon a dem israaf nag mooy nga santaal te dundal nga dundale nga balaa saraf see baax daal nga joxe la nga war a joxe ba def fay fa nga ko war a def dinañ mu bëgg lii la nag waaye yàq ñaar loolu dañ wala sa bokki seytaane képp ku yàq itam kooku mbokkam seytaane la de yonente ne ibda bi nafsika so bi man tawoon da nga jëkke sa bopp mais ka teg ñi nga jaboote ñi nga xam ne yoon waroon na la seen dund ci yoon mooy sa jabar te yaay wàññi ñàkk say doom ci ndaw ba ñuy mën a fab gën a jege nag gën a jege gën a jege ba ba nga yàq ci dëkk nooyee loolu nga yàq ci ñëpp boo dee ne tuuti leen lu bari trop mooy yàq waaye man de gëmuma ko noonu rek yàq daal mooy tuuti leen ci lu dul yàlla lu ci tuuti waaye bu fekkee ni yàlla la bu dee lépp sax yàquloo Abubakar sa yëpp taxaw na joxe alalam yëpp ba defewul dara loolu yàq yonent daaye ko yonent sañ na sebaam lu bon de day ci xel loolu loolu yar la daf di lebb la ma yëkkati woon sama alal bëgg a lebal ko am dara yéen ñëpp ngeen ci jàpp ne moom ko lebal du la fay amul dara du dul yàlla nag suñ nangoo ne am na nangu nañ ne amul dara boo nag ku jox dul yàlla lu mu tuuti tuuti yàq nga boo joxee lépp yàlla itam lu mu bëri bëri yàqu la ne defal ma ko mën a fay man noonu laa dégg yàq wa kaana masala yi seytaane seytaane kafooraan di wet yaar sa mbirab yi borom fekk seytaane mësa dañ di wet yàlla bay maa ko waxee baax na dem tëdd nga anum walit biskiniya ittixaar amateen ngir di akku yermande min rabbika jitik la borom sa sa jox a jagale yaakaar su fekkee laajkat bi ñëw na nag te fekk amagu la loo ko jox waaye yaa ngi yaakaar ne da nga am loo ko jox bokkul waxal la mu ñu ne xaw na wax waaye daa xam ne wala loo ko dig dig ne ko amagu woon ma la jox waaye danaa la jox waaye mu ne mais ma la jox wala te ñoom suñ def yaa fekk loxo sa wax loola tan bu di luñ daal ci laa wax lu bi ka jëm ci loxo sa wala ta sa tam ñoom la digge fa talal te tax na soo soo da nga dellu wala wati ku ñeente ma sooram dara nekkul ci yow rek pour daloon sa loxo nag fexe ba di déglu dara waaw mu ne kon danga mujj waaw di ko ñaatalee dina la bëgg a naka faram fa def su dina mu yaakaar ne xaw a def loolu yëpp daal ñu dem waaye ak dugub dafa dafa ko ñaan ko sol dina woon ak moom buur anam ma dañ ko beneen ndey xam dee baaj jam ba seen ndey seen baaj bi muy gis seen biti toog ak bopp ak solo nit ki bu fekkee wala sax du loo bu leen waaye wala nag bàyyi doom seen buñ ci doom ba noppi rey ko parce que dëgg daa xin ngir ragal ak reef yaaram dañ daa def ci doom seen dañ koy wàcc rek ba mu jant daal di daal di demal béy waajal ko takkal ko ba léegi ba njëkk a ba nga wax ko ci benn teel suur daal di ñibbisi daanoon mu na soxum daanoon war sa dandeen way yaa ku mag yeen ragal nak nag moo taxoon ci ragal toog ci ray doomu jigéen te doom jigéen dafa leen teg ray yu bëri dafay indi mbamb yu bëri ak gàcce yu bëri ray rek digal ak am daw na ko ray seen kanam mu ko dañ bakkaat ka benn ray doom ci yéen de bakkaat du ko man xanaa yonent ne ku bësagal benn doom bu jigéen wala ñaar wala mu am ñaari jigéenam waaw gerteen rafetal kanam yaar te defal leen lu baax bañ ba sëy waaw be sëy baam jëkkat ba doylu wëri seeni waj man sox dañ sa diggante safara rek ko ku def loolu loo dem safara mu gënal wala tax ko ren jege ci naa ñaaroo ina la naka moom kaala ma suma dañ ay sa tëndi ak ñaaw parce que ban nam sa bi leen jiw yoon de bu leen jege jaaroo foofu sax bu leen jaaroo bu leen ko jegee ndax moom mu ya koy jiitu rek ba yàlla la waaw waaw may laal payam jigéen doo tëb buumu loo ko de mu ne lu ñaaw la yoon wu bon la te yàlla gàddu na aji jaaroo juróom benn jikko yatti yaar yi ca yatti ca àdduna yatti ca àllaaxira ci àdduna fokk yàlla añ ko wërsëg ba mu ñàkk fokk yàlla ñaawal ko ba mu gën a ñaaw képp ku ñaaw dana ko tegi jàngoro joo xam ne moom rek ay daj mos jëli jàngoro loolu mu gën a màtt na la ci njaaroo te àlaaxira nag yàlla dana ko mere waaw dana ko gisaab gisaab gisaab ba noppi lakk ko ci safara rek ñooy fii di seetaane boo bëggee daal takkal rek wala taqtuloo bu leen rey nafsa bakkan la si bakkan ba nga xam ne xarama la xaramal na ko yàlla daa bi daal dina rey ci dëgg rey sa doom rek la waxoon naka noonu bépp bakkan pour rey bakkan laa waxee rek man ku di la ku reyef na ko masaman li muy kuñ tooñ ak jaal naa def na noonu li wàlli ñeel aji doon nam jeesu tan aw lay ray jéggi dayo fi tàlli ci rey dina woon naka moom kan mosuma dañ man soro jigi dimbali den boo xamee ne rey i rey na sa mbokk may nañ la nga fayu rek te yàlla dina la dimbale bul xëppal nag ba rey loo ëpp waaw kenn kenn reyal nañ ko benn bakkan bul ne man danaa rey fukk de wala tax raboo bu leen jegeñ maa la yatimi jidim jidim bi rek jidim bul lekk xalal yi jidim daa bi lati dara ca jikko ja nga xam ne yee moom asanu moo gën a rafet atayam lu xafel ba mu jotee asito dërëm dë waaw boo matal leen dinaa di ci coloré boo xooloon teg yàlla ak boo xooloon teg nit ñi inal xaada naka coloré kana mosu ma dañ ma soron dilu ci laajte waaw boo matal leen alkaay am natt yi sàkk dem natt ngeen aussi noo peete leen bi xiqaase ci bastool almustaqim bari aj bigg daalika loolee waaye du moo gën baax sonu te moo gën a rafet tawi leen ci delluwaay nag wala tax bul topp tu maalee sa ragal leen ñaan la bii ñoom leen mën xam-xam bul topp loo xam ne xamuloo ko inna sama naka dégg wal basara ak gis wal faa daa xool kullu ulaayika képp ci yooyu da yàtt xana mosuma dañ soxan dinu daajaan waaw bul wax loo xamul bul ne dégg naa te dégguloo bul ne gis naa te gisuloo bul ne xam naa te xamula nopp bi daañ ko xisaabal ak bët bi danañ ko xisaabal ak xol bi danañ ko xisaabal ak wala tam si bul dox fi lar li ci suuf mara am gi dësigër bul dox ci suuf di daagu di tumpang tumpang yi di paap di nga ko def loolu de naka naka yow lan tax rek a xotti ci la lar la suuf loolu rek béylu soo daagu daagu waaw mën la ci suuf si dara mën la koo xotti ci kawam rek ngay dox te moom jaam yàlla la gis kanim toroxlu yàlla wala nu tam lu ko jotti la ak bala dajee toolan ci gudd loo si gëni si gëni ko yëngani mbagg man laa bëgg ba mel ni dojji kon nag jarul sim kini ku jarul doy de te doomu aadama warte nañ ci kanam boromam de doomu aadama jël teenam lan la soxam man yu rek ku nekk seexlu ko mu jëm lan déet mu nëb rek ku nekk seexlu ko ña fa gën a bëgg ñooy gas suuf denc ko ñafalaa nëb ci seen yox ci diggante bi toog ay tojala ngi ci itam kooku ana lu mu reyloo kullu saalika képp ci loolee ana mu fa dañ sayyaatam di ak ñaaw en rabbi dafa borom sa makro di li te yooyu yëpp lu ci nekk lu yàlla bañ la ñaar fukki jikko nga ak juróom fukki yeeg ñenant tëgg na ko tëgg ak tere fukki yeeg benn tëgg ko tëgg ak ndigal loolu mooy sariyaatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de moo tax mu ne saalika loolee na awha aji nak la jëlawo yu na ko yàlla ileeke jëm ci yow na awha aji nak la jëlawo yu na ko ileeke jëm ci yow rabb ko borom sameel yi ma di ci xam-xam ko jëriñ de wala tañal bul dem ala da yàlla ila an yàlla axara jeneen mu baamu rob jëkk yoon nag ma ci gën a tëgër asoro soo def na sani de di jaanama ci jaanama ma loon ndim mooy guñu yàdde wata waran ndim mooy ndax jërmande yàlla afa asfaakum ndax dana jagle leen rabbukum borom seen bin bani na ci doom yi góor wa taxa sam jàpp moom meen malaayka di ci malaaka ina sana jigéen yéen doom yi góor rek ngeen bëgg am ngeen doom yu góor man yàlla mi maye man ma am doom jigéen doon mën na nekk nekum na kay yéen la taxawaloon da ngeen wax aw dan wax na si man di aji kër seen wax rëy na lool de xanaa yàlla kay amul soxla ci doom waaye bu demoon day am doom itam xanaa doom góor la war a doon waaye doom ngeen ngeen bañ man moom ngeen mi moomale wala xam taraf naa nun day den nanu fi àlal quraan yi ci la alquran yëpp ci léeb yeeg dël yeeg fekk yi yee sakaroo ngir nañu waadu commencé si dum dooli fi mu leen i laanu fooran da rek daw dëgg de bul waxal aw kaana doonte nekkoon na maa waan ak yàlla aariatuna yàlla kama taxuloon naka ñuy wax gisan booba de taxaw kon te ñu sakku ila di la arti jëm ci borom xaral sa bilan yor wu jëm ci xeex ak moom de yaari yàlla mënul am li nga xam ne jënd jigéen mën ta nekk diggante yaari jëkkër yaari jaasi mën ta daje ci menn mbat yaari yàlla mën ta boole woo benn alam de mënul nekk su fekkoon yeneen yàlla nekk fi ni ngeen wax xanaa kay du ñàkk bés mu mer ak yàlla ci fi nekk ñoom ñaar ñu xeex fi yaari yàlla nekkoon fokk yaari yàlla yooyu danañ xeex bés buur yaa day fi nekk ci xeex lañ dëkk kon nag mosu leen a dégg ñu ne kenn takk na xare jëm ci yàlla kon nag dafa amul jeneen yàlla de fi jeneen yàlla ne woon dana xeex ak yàlla de mosu fi jeneen yàlla ne woon ba xeex ak yàlla xeex bi fii rek lay mën a mujj benn ñi gàñe ko wala ci ci gàñe morom wala kenn kenn dana ci gàñe morom te ci kenn gàñee morom ma te ñoom ñëpp yàlla lañ liñ gàñe moom lott na lu jaadu ci kem rek jaadu na ca kem ba ca des kon yàlla ji ñu dàq tey ëllëg ci teg ëllëg ka ci des it mën naa am ëllëg ñu dàq ko tey kon yaari yàlla yëpp ñaar ñu lott lañ te ku lott mën na doon yàlla kon nag yaari yàlla mënul xam ne yenn yàllaa fi nekk si yaari yàlla newoon kenn yàlla bi dana jaam bi dafay toog dana kenn ko dee dafay jóg dem ñeneen a yëngatu ñeneen a daal ñeneen a dund ñeneen a dee kii nee na nelaw kii nee na yeew yooyu yëpp bi ngeen ko gisul war ngeen a xam ne jënd yàlla fi nekk de subhaanahu taala wa taala tam ko wax ma yaquluna ci la ñuy wax ma lu wan a kawe kabiran ku dee aji màgg rek sam biwu dana sabbaale woo ñeel yàlla sama waatu asamaan yi saba yo di juróom yaar wala suuf ba man fii na ak ñu nekk ci ñoom de yéen day yéen ay rakkal yàlla bokkaale ak di wax moom bi ci xellut waaye mboolem asamaan yi juróom yaar ak suuf juróom yaar ak li tam ko ci mbindeef yi mooy nit ak jinne ñooñu day sabbaal seen borom rek ak di ko màggal mooy seen liggéey ñi teg ci ne nag ñaar ñu dëjër lañu ñoom ñoo fi nekk di wedd yàlla ak wax ci moom de way min shay'in déet lëg daayu sat dara bu dana mu sabal bi am di jantam amul dara nag loo xam ne yàlla sàkk na ko lu mooy dafay sabalal yàlla walakin lu fi nekk daa taf xawoon dégg ci seen parce que yow ak sabal seen waaye yéen mënu leen a dégg sabal yëf yi de yëf yi sant lañ bu nekk ci tudd yàlla la taxawee amul lu taxaw lu mooy ci tudd yàlla la taxaw ñaar duñ bokk benn tu benn tu pencee yaari yëpp moo tax tudd yàlla yi amul dayo naka jëmm yàlla ñañ amul dayo tur mu nekk nag bindeef mu nekk nag ci turoom taxawee kooku mooy sa balam di la wan ne ñaar duñ bokk benn tu mooy wàjjut ak doom doom su wàjjutam fokk ñu wuute ba boo leen gisee rek xamee leen lu tax tur yi nekk ci kii ak wa nekk ci kële du benn yaari mbokk luñ ñi doo ñi doo fokk ñu wuute ba nga mën leen a xamee ndax feeñ ci kii ak tur wa ca kële bokkul ata ñaari teppi suuna sax booye boo fekk dendale foofu da ngay gis lu yëkkate rek ndax ci def tajalli ci biir pepp ak boo def tajalli jëmbalee lu benn def bu nekk nag su boom taxawee moo di ak sabaalam yéen nag mën leen a dégg làkki di ne fi ci ren boo dee ñooy firi dañuy wax ne yàlla dafay bind ci ñoom roxo bañ sabaal waaye loolu bu na rek def lu nekk ma ngay dund ca dund ak yàlla ga te moom xam nañ ci nit ñi ñoo xam boo yonente bi ko jul bi daal si joodal mu ne lu yàlla bind xam na ma lu may lu may way dajale ci rek way dajale ci ne rek ñoo ñoo ma xam walaa gën la fi nekk laa tax xawoona dégg di leen tas fi awum sabal seen dina wane ko moom pour kanam su ma dañ xaliman di aji xem bugal aforan di aji bay bakka den bay sa xalaata dem jàng nga alquran alquran yaa naanu def bay na ka diggante sa ba bay na dasina jàpp diggante ñooña daa yow mi na gëmuñu bi laaxar ci àlaxira jaaban ci daay alquran ji daa gis quran te baa ngi mel ni isma fonte isma fane la boo jàngee alquran yàlla def sutura sa diggante say noonu de ñu bëggoon a góom yonantu ba ba ñëwee ba tiim ko gisuñ ko waaw yàlla wax loolu de ba jaal naa def nanu xalaa xolo lim ci xol seen ak na seen ay muuraay an yëpp xaw ñu dégg alquran de wa fi asaanihim ci noppi seen wax rana tax wa yaa zakkarin def dara bëgg borom tamit quran ja alquran wax doo mbir mu aji wéer donc ñu sëdd xalaat bari gannaaw seen bu foran buñ di way daw nanu noonu aala mu ñu aja xam bi maa yestamiuna danañu déglu bii ci moom yestamiuna danañu déglu ilayka jëm ci yow way sum ba ba ñoom nañ waa way tey lañ yàqulu ba dana wax saali mën a way tooña tagoona den kenn di topp yi laa rajolan dara waaye alquran gi di ci ñàqam xelam mooy Muhammad um suuf seetal kay fa dara boo naka ñu defee naka ñu yàlla lam taal leen fa dal loo tañ réer waaye sa dee yo waxaaloo wax nañ ñoom bay weddi dekk ne ay sàkku naa dem nekk nañu xeesa man di yàq xorufaatan te di wayu fu na dinaa naka nun la ma moo soxla ñu dekkal la ñu xam-xam bind njàddi nan bu dee aji xeer gannaaw buñ dee ba yàq yu fu na yàlla mën nañoo dekkal kooku mënul nekk pour nekkul waxal koonu nekk rek gaaratan toj aw xadi tan jëti weñ bu ñëwul aw xam-xam kenn bi ne bi ma yak buru dana dana mu rëy gis góor waaw su ne boo di toj su ne boo di weñ bu ñëwul lu rëy rek jën nekk leen ko waaw yàlla faalewu leen dara rek yàlla dana leen waaw dana leen dekkal waaw dana leen hisaab de parce que yàqoon na xam nañu wax man yooyu duna dana am ak dana mu dekkal na rek waxal la si kàkk fa rek bind na mu gën a wala ma rek yéen benn yoon te nekku leen woon dara nga leen sosoon te nekku leen woon di dara ma leen di dekkal gannaaw bu ngeen dee rek te yéen sosoon na am na yow yëngal dégg jë yooro may ba yàqoon na dañu wax ma taawu waan ak ay njëkki nag waxal xasaan yàqoon na amaana bu mu nekkat xariban di ak jege dama yar moo kom des ba dana ma xooleen ngeen bëgg seen i bàmmeel a bi taxawee e yéen jàpp sox yi le e yéen jàpp jàpp yi le e yéen kawari saaro yi jóg leen ko ñaxa ko xarite waa ay tamit yéen yéen di sax jaadi nañ sax ale dara ji ñëw de te keroon ngeen topp nekk defe ne benn bés la am jaadi na waxul waxal li ba di ñaara jaam sama yàqu doñu wax dina tii ba yàqu doñu wax ñaal yëbëri am na tii baat ba nga xam ne li yow moom baat na rafet dina seetaan naka seetaan yéen sax dana ma yàq bay na mu diggante seen na seetaan naka seetaan kaana mos moo dañ ak kon ci noonu di bis noonu sànni ñeen nit rabbukum borom seen baat prophète baa ko kat alam maa ja xam bikum ci yéen ci yasal dem soob nam yaram mu yërëm leen bay yasal dem soob nam yaa si dugal leen de waaw kéefar doon rek dañ ko wax yaa si loxol yàlla nga nekk bu ko neexee mu may def bu ko neexee mu xalak la waaw nga dem safara de comme arsa naa ko yónni mu taali ñoom wàcc leen ngay aji mënante leen de rabbuka borom sa alam maa ja xam bikum ci sama waat ñu nekk ci asmaani juróom yaar wala rek juróom yaar wala xatasal naa wala ay gënal nanu waaw tamit na leen yonent yi ala ba ñenn de ni ki yonent yàlla Musaa xamee ba yàlla jagle ko wax ja Ibrahim yàlla jagle ko xarit Muhammad yàlla jagle ko rañaan ma de waate naa jox moom Daawuda Daawuda sabóor sabóor Daawuda yàlla wàcc moom téere sabóor bul waxal doo oo leen alla dina ñaaño saam na ngeen ay yàlla lañ ñun doo ñuy dugg yàlla wala am li ko doon moom si ñu te sabóori ñu ngi lor an ko bëri seen wala sax wi dan di jàgg na sot yàlla lañ ñun doo ñuy dugg yàlla wala am li ko doon moom si ñu te sabóori ñu ngi lor an ko moli seen wala tax wi dan jàgg na soppi ci kuréel yéen walaay ka ñoone la gaa yi dina ñëw di ñaan yàlla woon danañu jaamu leen def taxoon danañu sàkku ila rabbi jëm ci borom seen alwasila tak jot di koy ayum kan ñoom aqrab mu dana jege ñi ngeen jaamu ni ki malaaka yeeg ñeen ñoom ñaanu yàlla du way lu leen jegeñal yàlla de waaye ñoone danañu yaakaar rahmat wa yermandeem waaye xaafu na danañu ragal ansar borom bëlëm ina asab rabbi ka naka bëggalam borom sax kaana mosuma dañ mastoran di lañu ragal way min xareetin yéen ab dëkk ilaa naxanu dara mbir mam nun yàlla mu ni ko waaway xaarak lan ko xam ne yow xiyaamat ci penc yàlla waaw amul benn dëkk boo xam ne dana fi def yëpp te yàlla yi waaw alak de ci tukki del àddina aw maa si waa i gaa ji gële leen xasaabal mu sal ne mu daaji sat kaana masa dañ saalika loolu de ci kitaab ci lawin ma foos ma soorali suñu bind de wama mën a tere wu noonu la bu ñu yónnee wet di laa yaat ci kaw yi ngeen sàkku daan kat dafa ndare wet na gaa ñoom la waroon way jëkk ña de laaj jëni kaw yi joxuñ leen ko waaye ña ko laajoon bu njëkk bañ leen ko joxee dañoo wet di war ñaalawi leen kon nag yéen ngeen ko joxee du ngeen gëm da ngeen di wet ngeen wet de ñaalawi leen daf biram yonent bi moom dafay mag du ñaala xeetam de waaw dina jox nañ sa moda sa moda naa xam ne dem mu gis na tamit bu yaa gisee parce que moo dañu weddi di yaa ci moom de commande sur bilaayaat kaate yi laa tax yi man dara ngir ragaloo de kaate yi yàlla yi yàlla yi feeñ lu demee nii jàmp jant bi ak man yi waa kooku yàlla soo gisee mu di ko yebal ay jamono ay jamono bëgg kenn ragal yàlla bëggam de ba ko jàngatal xul naa ban waxee laaka ñaan la dina rabaka naka borom sa aata léem na financé ci nit ñi yàlla léem na ñëpp comment jaa naa def lu roog yaag yéen si gaakaare naaka war nan la ko daa fi na tara na tuddi na fi ñeenti euro makka yonent bi yàlla yonent la woon waaw yonent bi waaw bu digal ñaan ma waaw bu génn ngelaw gis la waaw ba mu gisee jaanama na gis nañ ca saxoom garab sax ci jaanama waaw meñña tam moom dañooñ safara di lekk abo jaari ci tam ne dégg leen waaye Muhammad di ngeen ñu leen di tëkkoo safara soo xam ne fay lakk doj léegi mu ne garab ak cay sax waaw daal di woo ab jabéeram daka waa moom ca nee ba ne ko mu ne indil ma saxoom rek na nga dël tàndarma ba mu nooy nga def ca def ca lem waa ngay indi de waa naka na yonent Muhammad tam leen di tëkkoo saxoom danaa leen leer léegi saxoom ba ngeen xam na mel dañ ngeen ma saxoom yi nii da ngay indil ma saxoom jabéer ma daal di indi waaw tàndarma ji indi saare bér ko ba mu nooy boo leen tax xaq bi lem mu indi waaw leen saxoom bi leen Muhammad di tëkkoo ba mu seet kaa ñu ne lii leen mën a jëwee yàlla ne loolu la ci jublu woon nag wa sajarat ak garab ga almal woon a tëdd gën gati ko ñu rëbb fil Qur'aan ci alquran bunu xaw foofu tan ragal loo leen ama yesi um doli simu leen laa soxla na rek daw kabiran bu yaay magal pour jàngatal is xol naa ban waxee leen malaaka ni ñaan malaaka su ci doo su jël leen li aadama ñaan la aadama leen parce que doo tañ su jël ila iblis la rek iblis xaala wax na mu ne ah si du su jël ci ma di man xalaata jël nga bind ci naan muy bande xaala wax yàlla araaytaka solo ci dama asal xaala wax iblis ne araaytaka solo ci dama asal la di asaakile la di kaaka karamta gënal nga soxalee ci sama kaw tey naa xarta nii walaay ndem yéexee nga may laay taamati ba ñëpp tam yàlla daa tan di kan dana ma faagaagal duriyet ko waaye doom tewloo de daa xali dana re aji ni yow xaala wax yàlla ci sab demal xaman sa benaka ko topp na wala ñoom ci ñoom da jaanama naka jaanama gisaa ko mari fay sa gisaan te ma for mbiri muñu matal leen wastafis butil mani salaata ku gaata minum ci ñoom gisaw dika ci baata yàlla ne ko yàlla ne iblis ba yàlla rëbbee iblis ne ko demal yaa ko la topp safara nga jëm mu ne ko jox nga yonent bi lu muy wootee jëm ci topp yàlla noo dëkkat yaa ngi nodde man nag ana naka laay nodde mu ne ko buddi leen ci ay way ak xalam ak lépp ko moo xam ne dafay xool jëm ci mooy yàlla noo di iblis nga way xaajuraale ñoom ci xayli ka ci naaru góor sa wara ci ka ak liir sa ci xayli ka ci kawar sa wara ci ka ak liir sa na nga na nga xaaju nit ñëpp xooleen ci mooy yàlla ci sa kawar ak say liir a taari kum pakale la ñoom bi la waali ci jox na yonent asaka yow jox nañ la riba ak daal jël ak saj wala wala dee ki doom jox nañ yonent sallallahu alayhi wa sallam ay doomi yoon yow jox nañ la doomi jaarooy wane ruum dala deen ne dekk xamut saal xamut oma yane ruum dala di deen seytaanu seytaan yi laa xuroo ndaray baatil de waaye lu mën a am nag pour ne ko inna baati na koy jaam sama te sala kadiyet ñaa la alay ñoom pour sam kattan waaye doo am kattan ci samay jaam de dafa doy na dara ci borom kon ci nam ci wakkili bi tam ci moom rabbukum borom seen te si mooy kaaka gis kii dana moom mànga laakum ñeleen alfukka gaali fi baari ci géej ta taxaw ngeen na ngeen sakk mun fadri ci yomba neloo naka moom kaana mosuma dañ rahima di aji yaram ngeen de way daa masakum dem jot na leen pour tattat fil baari ci géej ba ngeen ragal la wala faddu man sadama nañu da ngeen xooleen yaa yaa pare yàlla de wala maa na jaakum fam solee leen seen bari ba ca jëri ja aral sum ngeen tëdd wa kaana masa dañ leen saanum yéefar kaforan di weddi agoon xewal ak borom de afa amit ndax da ngeen xoolu ay yaxti fa mu nuura la bi yéen jaani ba bari ca waa bi jëri ja yàlla ba nga jàqee ci géej nga xoo ko ba noppi ba mu la jàllalee nga fàtte ko xanaa nga fàtte ne su ko neexoon nuural la ci suuf tam nuurale woon xaaroona afa amit mu am da ngeen xóolu waaw aw yurti lay kem xira alaykum seen xaasiban jambaraay wala mu taw seeni doj mu daal ta jidoo topp fekk si leen nakum ñaa leen wat leen aji wattu ama amit mu am da ngeen xóolu ak ñoom rek mu delluwaat leen fii ci géej ka taara tan yoon uxraa weneen am waaw weneen yoon a ngi fi mën ngaa géej dellu dugg ci géej ba yurti la tam xiir alaykum seen aasifan aji tam nari ci geraw yi doo koy xakum tam la ba leen dima kafartum jala ngeen weddi wala taji doo topp fekk leen akum leen ale na ñun tabeen aji tapre wala xat karam naa nu day gëran bani aadama doomi aadama yàlla gënal na doomu aadama ba jagle ko xam-xam ak wax ak taxawaay bu jub a waxam naam waral na leen gën bari ci jéeri wala bari géej doomu aadama rek a jagoo war di jéeri dafay war di ci géej dafay war wara sax naam tan war saga leen ñu ne tay baati way tey jam jam yi neex la leen yàlla leeral ba bokk ñoom ci nga xam ne ñax bi rek lañuy far fadal naa am gënal nañ leen ala kasiri ci aji bëri man xalaat naa ci ñun bind taf di leen ak gënal leen yow ma yàgg dama des ba dana nu xoo bu lewu naa képp ci indi maa dem jéeni maa seen des ba nga xamee nag ne waaw ku nekk ñu ngi koy xoo waaw xeet Muhammad waaw xeet Moussa mun ootee ko joxem na ko kitaaba ootee leen bi yamin ci lay joram ay ka ñaari gaay taxaw na dañu jàng kitaabum jërëjëf walaay sama na dem wàññi leen fàtte yéeral jàmp waa wañal taalak dal na ma de ko man kaana ko nekk na fi asi ci la àdduna ama di aji seen maxa o moom ama aji seen maxa la mu fi laaxira ci àlaaxira rek ku bañ a gis alquran ci àddina waa laaxira bu la dekkalee moom da ngay seen maxa rek waa abdalu dëgg na réer tam di leen ci yoon wayn kaano naka jage nañu wàcc na ba nga xamee ne waa sax yi dañ laaj yonente sallallahu alayhi wa sallam mu xaraamal seen xurwani mu xaraamalee makka mu ne wayn kaano naka jage nañu te si noonu ka dina tudaani la si yoon isaara away naa woy nan fay lekk jëm ci yow i taf tari ngi na nga duub saxle naa waral nu xaare wala moom fital boobale nga defoon ko saxasoo ko fan dañ jàpp saxali na ko yéegi ndaxam boo nan ko woon seen caaxaan yi rek ci daal di la def xarit wala laa am sabat naaka lante ko nag ak saxal su yow saxat yi ba jege fan nga kar kanu di jàng yi leen jëm ci ñoom te yàlla jàng xaalis leen bu dee aji neew de ko itan boobale nga ko defoon nag itan boobale nga jàngoon jëm ci ñoom aa nag wala defaraaya wala fan mamaati ak ku ne léegi balam deere malaa tañ di sopp la ak ñaalaale naa war na si naa ji wayin kaa doon naka jege nañu ay safi soo naka gis dina mel dara ci suuf ñu ne yonent génn mi dina dem taam foofu la yonent yee dëkk boo bëggee ñu gëm la ñu fa ñoo fa gis nañu génn la mi naa ci medina way san booba de alxaba ci gannaaw bila xalil naka ji ñëw de waa dofu ñu ala ko ñu sama xalaat sama mooy baaxam ñu sama xam naka jëkk ñu naa ci ata ji safi aqimi taxawala salaata ji juróom soo ki samsi te waxtu fekk ak jant ba waa saa ka soxi waa ba jël waa ak ba jël julli suba ngoo dina xuraan fajri naka julli ci waxtu suba kanam asosali dakere malaa kay bëccëg yi guddi yëpp koy teg wataa jët dilil mi na leen ci wataa jët dilil ci moom ak bi ak alquran naafila tamit muy farata la ka ñu yàlla bu gën a yow na nga naafila farata la ci yonent bi ci naafila ci kuréel moom asaa nga wasaka attan na bu mu taxawalal la bu mu fara bu faral la rab ga borom sama xaamam taxawaay maa ma doon bu sant leen yàlla dana la fal la ci taxawaay boo xam ne ñëpp danañ la gërëm de mooy bam taxawee dara jëfee jëm yàlla waxul waxal rabbi yow borom sama te nii yàlla nga xar sama matala xar ko ayab dëggal baax nii yàlla nga génne ma mu xëj a si xin génn waa ayab dëggal de wañal defal lii ñeel ma mi la dugg dugg yow saan lay nasira mu dee aj bële ma waxul waxal jaa dikk naa làqu diin islam asaaka dem naa albaati lu kéefër nel baati nag kana mosu moo dal sa waxal de aji dem de waaw na si la dana wasal mel xan ci al quran maa walal moom si faawun saafara la rahmatun te yéemaande din moom mi na ñeel way gëm ña wala ay dooli si musaali mi na way weddi ña ilaa xasaaran dara gerte rek way saa anam naa dem xeewal nanu alal leen taana ci féefar aara la mu tëdd ba bañ a sant yàlla wana atam sori wana atam lem bi jaani bii ci wàllam ci fuugare de way daa ma saw lem jot na ko sorum ñàkk kaanan mosumoo daj yow san na baa ko yërmande yàlla de kul waxal kul jëf yaa ma la dana mu jëf ala sakkile tii ci yoonam barabukum borom seen alamu maa joxam di mën wacca ka moom ahdaa mu dana ci sa bilan ci yoon waaye sana ko danañu laaj taxani roxo yi ci roxo laaj ko yak yëpp luy roxo taana luy xale yi nga xam ne dañ génnoon nga daay te ñu bésiwuñ ak doxkat bi nga xam ne dox na seen ko xar bi yëpp ñu koy laaj ci roxo ak ahlul kafi ak sol xar nay ni roxo lañ jëkkee yow dañ leen ne laaj leen ko yetti yëpp du tontoo yëpp ut ab yonant du tontoo yaar ya wax ci mbedd ba waaw ci yàlla kon ab yonant la du du loo xamee ne lot na ci tontu yëpp nag way ba tey waaw ab yonant rek pour ne wayesal na ko danañu laaj daa am roxo yi ci roxo ñu koy laaj roxo mooy li nga xam ne ci la yaram bi di dundee pour waxal roxo roxo bi na am rab yi su gën a ji mbiram borom sama de rooxu mbiram yàlla la yéen xamu leen ko maa wut suñu joxe ñeneen nit xam-xam yi sax xale dara ñu néew xam-xam yàlla ba su tuuti la ci wane ne li ci des des def ko nëbb wala ci naa doonte soo ko nanu na sa ban kon tey mu demee des ci ilaala waaye naa woy dañu koy rekk jëm ci yow mu laa tëj saka ñeen la bii ci moom ale naa ci nanu wàkki nanu suñu joxe li ci jëm ci moom de ilaalu fi nekk desal nañ ko rahmatan ngir yërëm waa bi rabbi nga wut ko borom sa ne fas la oo baa naka aw yiwam kaan kabiran di aji mag ale gi ci yow yërëm sallallahu alayhi wa sallam bul waxal day ni tamaa ci doonte booloo woon na lin suñu bët jëm ak ñaa la jaatoo ci fukki dikk rek ci daal alxuraan ci kam ci daal alxuraan daa yaatu na dikk di ñu mbi fii ci kanam de ci dañ ci ne yëpp dañ dajaloon bëgg a def lu mel ne alxuraan waaye duñ ko mën a def wala kaa nag day nekk na baa bu ñene def fay rendi aji dimbalee ni baa dañ ci ñene de asaab dimbalante sax wala xa saraf naa nu ndey bidal nanu dinaa fi ñaane ni daal alxuraan yi ci daal alxuraan duñ ko li masalin ci ëpp lépp de aba bañ naa tëru naa si gën ca bëri borom ma kay laa ko forom dara di way weddi de waxaaloo wax nañu ne dan ko na dëggal tu làgg ci waata ko jira bal ba nga balalee danaa ñaanu mais dara gisu si maka yan boon ay balle ko ñu balalee ay sew yi waaw ci daw ci maka aw tànkoon yi gën ak làkk ñaan la yow ci sa bopp waaw jana dun tool bi nax ilin ci dalma way na bi nax kenn ko fa jira nga balal lan xaara yow de xilaala aji gam tam jira ak balal waaw wala boog yow fi yàlla yooni nga xam dara boog yàlla yooni la ngay ci ci na mu rut nga am toori dalma ba ak toori henam waaw yoon yaa daw ci diggante ba boobu xam ne yàlla la yéen aw daa ke ngarotal sama asamaan kama saam dana ka nga ñaare naa ci noonu kita bana ci togi wala nga dagga asamaan fi taanak ci biir kaw léegi aw saake ka nga dikke fi laay yàlla wala malaayika dem malaaka yi xam ne lan ci janoo de wala nga dem xaw yàlla mi la yónni bu ñëwal bopp malaaka yi sant ko maa ci demaa yónni Muhammad kon kon lu mu yónnee di def aw yaa ko ne gën nak la ka ñaala fay teeg ñu toxu fi ñu wurus wala boog mu defal la leen wurus aw talxaay ka nga yeeg ci samay ci asamaan wala mu defal la yëkkale nga yëg ci asamaan yi kanoo yow ba nga dugg ci asamaan sa wala ndoom yi nag dem ci nu kët dana ko yëkkati yéeg sa atasuna si la dal ba taga wàccaale naa ci noonu kitaab téere naqara danoon jàng ko de waaye léegi ba ci asamaan yàlla dinañu leetar duggee na ci man yàlla jëm ci Abu Jaalib si Saam duggee na ci man yàlla jëm ci Hotbata duggee na ci man yàlla jëm ci Sayba su ne yàlla bind ko leetar damaa yónni Muhammad waaw kay boo defee loolu nag ñu xam ne dëgg la kon waxal an rabbi sama sell ak borom sama ndax nekk na ilaa basala ndara di doomu aadama rasulan di ko yónni ma lii yëpp du ngeen ma ko laajee man waxuma ne yàlla laa dama leen wax ne yàlla ma yónni ma mën a terew naa sa nit ña an yoom ñoo ñu gëmat yaa ma dikkale yàlla daa am daa am xaaloo daray wax dara faasa daaw ndax yónni na yàlla basala doomu aadama rasulan mu ko yónni pour waxal daw kaana doon te nekkoon na fi dara ci suuf malaayikatun ay malaaka dem sunu yooyu danañu dox bu may ñu nit ñu way sax dana sol nag leen wàccaale ci ñoom ne sama ci jaasamaan malakat malaaka rasulan mu di ko yónni de su fekkoon ay malaaka fi dëkk kon na yónni yónni malaaka rek waaye ay nit fi dëkk moo tax nit laa yónni kon waxal kafa doy na bilaay ci yàlla sëy daf jaaj da bay di diggante sama ba bay na ku mag diggante seen ina loo naka moom pour kaana ma dañ xam ren jaaj seen laa di jaam ren jaaj seen de bu man yaa di laa ko fa yàlla foofu man mu tani mu ay jib man yu leen kuréeral te ci defek seen lawum ñeent na awliya away ndengoo min dooni dul moom de wana ko moom dana ko ngale yamal xiyamati ci penjam yàlla ala wu joy ci kanam seen am yàlla mu ci way boobu ba bokk man ak dem ci way lu ba fi man ak dem ci way tax de ma waaw faa seen jaanama jaanama bu la ma xabat bépp bu dalee waaw bépp bu dalee yàlla moom safaraam ba dina am dal leen baran ak tàkkal leen daalika loolu jasaaw mooy fay seen yaanam kitaab dina ko ñoom ko faroo wet nañu baa dina ci kaw tesu waxaaloo wax nañu ñoom way wet dekk te ay saaku naa dem nekk nanu ne saaman di yàq waru faa tan tadi way kuno dinaa mekk nun dama ko xam dekk lañu xam-xam ak bind jant bu lay yeesam pour ne awalam yaraw ndax xamuñu ana laa naka yàlla dafi yàlla mi nga xam ne xalaqa bi sama sama asamaan ji ba yaar wala laa turi ji ba yaar a dina ajaar tan lamu ala an yaxlu ko ji mu bindal min law kem seen ko jaala def na mu law ñeelana ajalan ji daaray ba dee tikki fii ci moom de waa ba fañ na saa na way tooñay daa ko borom dara koy weddi pour waxal ndaw antum doon dina ko yéen tam di ko na da ngeen moom xasaay na rahmati rabbi yéen dam di yermande borom sama idan fawale la am taktum kon da ngeen nay xase salin baax ngir ragal dundale de wa kaana masa day insaanu nit atooran dina aapande wala xalaate naa nu lay jox nu Musa Musa di sa ayaati juróom ñeneen ci aaya bay naat ñii di way de mooy xelwa ak loxola ak baay pamba ak njéeréer ak walga ak mbotte ak jarat ja ak masax seen xalal ya waa mu nekk di ay daj aga ti décoré de parce que laajal bani israila bani israila laajal bani israila ndax noonu dam de jaawam ba mu dikkalee leen moom Moussa fa xaala ta wax la ñon ko firaw firaw na ci naka man daaw su ko dama jot ko yaa Moussa yow Moussa ndax soxal nga di ko njàqam xelam waaye Moussa ci ne la jàpp moo tax ngay woote ak yeneen ak yeneen yàlla jëlut man xaala wax sax ne ko la xalaali tax xam nga yow firaw na maanaam sa la wàccewul aw daa yi nekk ak yow idaara bu samawaati dara borom asamaan juróom yaar wala nekk si juróom yaar ba saa yaram bi xalam way ni naka man daa sunu ko dana ma jot la yow firaw yaa firaw na yow firaw na mas boor ngay aji xala ko rek firaw na jot na ne Moussa ak njabara ko jàpp xelam dafa yàqu kooku njortam mooy na Moussa moom njortam ci leer ak yàlla lay teer Moussa moom ne ko man jort naa ne yàlla la xalak rek soppi la wani lépp yiw loolu njort mooy dëgg baaraada dana ma firaw nu an yastafi sa um um buti la deen mi na tam ci suuf si mi sax firaw na daal itam ne dana sàkkal seen pexe Moussa ak bani Saada waaw wax naa wutal labal ko ba man maa ñu ànd ak moom jam deen bi ñu mboole ñu labal leen ca baaru xol boobu lépp waxul naa tan wax min bani min bari jaganaam li bani Saada ñaar bani Saada uskuru dëkk leen lala suuf si fay saa jaa dem dikk na waa laaxira di dëgg saa su mu gisal ci naanu dikkee di kum ci yentali fan ci ngeen di mboole de ko bi xaq ci dëgg am tal naa doon doon wasal ko bi xaq ci dëgg na sal dama wàcc moom alquran wa maa sal naaka nun day yónni mun da dam pare bi rek dëggal mu xal jana kon xiram sa aji ragal la wa quranan fasal nanu alquran farak maaw waaw fasale nañ ko ci dem ñaar fukki at ñax de di tax gi na nga jàng faxal naa ci nit ñi alaam seen ci yéex de wala aa nga jàng ba ci nit ñi ci dem fukki at ak ñax waaw ndax ñu mën ko waaw gëm de wana sal naa wasal nan ko moom alquran tam si la naak wasal de kon waxal amino gëm leen fii ci alquran aw daa toon nooy gëm leen gëm su yéene boo gëm su yéene boo bañ a gëm loolu coupé la de dina la si naan ka ñaanee ko dina ma joxe rek xam-xam nañ xam ne jëg jëkkam saa yu taa dem dem na jàng ale ci ñoom alquran yaxeloona dana ñoral dina sànni ci saxana seen su njëlan ci wéy ci jóde ba yàqu nañ sañ wax saan rabbina nañ sell borom sunu waa kaana naka nekk na waa rabbina teel borom la xool bi suñ def ba yaxeloona dañuy rot dina sànni ci saxana seen def ko na mbir moom danañu jooy waye si luum dana mu dali leen alquran bu soon torox yàlla bul waxal dafa xooleen daa yàlla aw dama indi leen xoo rahman rahman rek tur yàlla yi waaw juróom ñeent fukk juróom ñeent yëpp bu leen ci neex waaw seen xoo rek waaw jëm yàlla ji la ay yëpp dañ doon wax ne ñun de moom a njaaxal nañu bu ñu xoolee yàlla yi bëri moom yàlla yi bëri la am ndax tey mu xoo laahu tey mu xoo rahman pour ne xoo leen laahu wala ngeen xoo rahman ay yëpp naa taloo ngeen xoo loolu ñeen ko las ma wisu yàlla sa ay rafet moom waaw waaw ak juróom ñeent yi nga xam ne waaw téeméer de dara denn ba ko matal téeméer moom dañ dëbb waaw mooy waaw tudd yàlla mag wa leen waaw ñeneen ci tur yi nga xam ne ñooy umaat asmaay ñoo leen tuddee wala wala wala xar wala saayir wala baati waaw ñeneen ak jëm yàlla ja nga xam ne moo juróomeel muy juróom ñetteel saayir ak baati muy fukk waaw ñu teg jëm yàlla ja nga xam ne waaw muy juróom benn te benn ci sax da ko ci def kay baa muy ñett fukk ak ñett nekk ñett fukk ak ñett ñetti yoon mooy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñenant beneen yoon a nga ko si di ngeen génne tudde yàlla yi baa ci ñenenti turi wala du xaafit wala lu yàllu yaa ci tuddi waxtaxit sàkkul bayna salika diggante wala tajar bu diggante salaa di ko ci jàng sa wala du xaafit bul waaw yàllu yaa ci moom rek waxtaxit sàkkul bayna salika diggante googale yàllu ak googale bidal sa di leen ko yoon waxul wax alhamdulilah cant yonante ni laa aji nag dañu yàlla te fi yàlla mi nga xam ne da tax di jàpp dañ ko wala mu yàkku nekkul dafa ñeel ko sëriñ aji bakkaale fi mu ci góor wala mu yàkku nekkul dafa ñeel ko waliin aji dimbale mi na sulu ci toroxte ne ba kam bi mu màggal ko moom yàlla tak bi ak màggal ne dana wax allahu akbar walilahi alhamdu wa allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walilahi alhamdu